il faut que ñu arrêté nañu arrêté man duma koo xam ne dañ may attaqué loolu lañ def fi Moustapha Diakhaté te li ñu wax lépp dara du ci dëgg Moustapha Diakhaté dama ni bu dee daa détourné six cent millions am nay milliards yu ñu détourné fii waaw am na bu dee moom détourné na fii six cent millions ay milliards la ñu détourné leen waay. il a fallu que le président dépêche des délégations, des délégations et des délégations. Il les de personnes, si on au niveau de la CDAO, ils n'honorent pas le Sénégal. Je vous ak mbooloo mi ñu wër di déglu ah, ndax Sonatel lu am solo la te tamit wax dëgg yàlla bi la ko dénkee ba léegi a ah, li nga ciy def ñu bëri gis nañu ko àdduna nag da doon mat parce que ni nit ñi di yokkoo noonu la lépp di yokkoo ci àdduna bët bu set rek àdduna bi yokku kon itamit euh, yokkute mun te ñàkk waaye wax dëgg yàlla am na solo ci réew mi bu loolu paasee sama wax toujours damay wax ne député goxam moo tax di moo moo ko tax di jóg ku nekk ak sa wax man mii dof samay wax samay wax la ndax député laa waaye dofu député laa nit kii tamit nit la mu wax waxam waaye di leen xamal ne ñun képp ku bokk Benno Bokk Yaakaar euh, dëkk ci réew mi man ni ma ko gisee dañoo sant yàlla di gërëm gërëmi tamit président de la république ndax mille 2008 2009 Macky lépp lu mu am mu ko commencé am ca ba muy nekk directeur énergie nekk ministre de euh, nekk ministre de énergie nekk ministre de l'intérieur nekk premier ministre ba ba ñuy sos parti bi képp ku fi wax muy man di suma morom dañ laa jox oto jox la bureau di la jox xaalis kenn mosu tee jox Macky benn dërëm te Macky kenn mënu ko xupp sant yi tamit nag dafa baax kenn rek moo mos di ko financé ba Sénégal daj ñëpp xam ko te tagguma ko ñaanuma ko muy Arouna Dia képp koo xam ne kii àndoon nga ak Macky di politique xam nga ne Arouna Dia moo doon dimbal dindi moyam di ko dimbale keneen ku dul moom Macky moo la jàppale bëri na ñoo xam ne ñi amoon nañ problème ci seen politique ñu dàq leen ñu ñàkk lañ yoroon waaye Macky dafa taxaw ba at yi yépp lépp lu ñàkkoon dañ leen ko fay muy xaalis fu waay mën a dem ci àdduna bi teewal fa assemblée wala nga teewal fa Macky Sall Macky Sall moo la yóbbu la fa te amoon nga ay moroom yu la ko dàq fop nekk fi man ko dégg nga kon as gor war naa mën a rus naan may nangam maay nangam as gor war naa mën a rus nit defal la teraanga nga wëlbatiku dal ci koom di di wax ci moom loo waru la wax ñun de dañuy sant Macky Sall dañ koy gërëm dañ koy sant man mii di wax yàllaa tax may wax mboolem ko fi taxaw di wax yaa ma cëppale fop terewul nag man maa ngi koy gërëm ba ilaa yoom yu fa soona parce que maa ngi moom ànd kenn ku nekk nag sa wërsëg nga mën a jël waaye gis nga àdduna bii ku moo fi doonul yoon assemblée bii ñun député yi war nañ koo seetaan assemblée bii du waxante lu ñaaw du xuloo du saagaante du indi ay yet du xeex dafa rafetul waruñ koo def bépp képp kuy député boo ko defee def nga lu la warul képp kuy député bu sa sa morom waxee waroo koo tontu sax jaaduwul ndax bàyyi ko mu wax ay waxam nga wax say wax benn député warula tontul benn ministre ndax ministre bi mën naa tontul boppam réew mi nañ ko teg ci yoon doxal ko ci yoon muy dem ñun loolu lañ gëm Macky Sall nag am na fulla am na fayda xam na fu mu jëm am na xam-xam am na fit te kenn mënu koo xupp parce que gor la képp ku taxaw fii wax ne du moo baax moo xam nga bokk ak moom moo xam nga ànd ak moom képp ku àndutal ak moom it